did you feel waale daal li ma koy wax waale na am jàmm son xoromaareen bi waale sekk na am jàmm waale képp la yéenewul jàmm yàlla na këpp si kawam hmm. waale sekk man de waali man manuma dara de. mais gis nañ seen complicité yéen ñaar keroog bi mu ñëwee ci plateau bi ndeysaan eh, ni mu la dalalee jub chaise bi mu toogoon eh, jox la nga toog mu doon loo xamante ni aussi dafa rafet saa su ne day gën a wan a lekk li seet si si lu rafet. waali nit kese la. waali dafa doon nit koo xamante ni bëggul buur mm-hmm. waali dafa doon nit koo xamante ni buur wi ku mu ko soxlaa mooy si côté musique bi muy def si la soxlaa buur wi. mais waali soxlawul ay wax fii wax fee wax fii wax fee waale kuy jëf mhm. moo ko gënal kuy coow soxlawul wax ji mhm. génne na ko benn way sax am na way bu mu génne xam mhm. xam nu mu koy waxee sax am na way bu Wally Seck génne amul wax coow li coow li xam nu ñu koy waxee sax xam nu ko Wally Seck waaye mais boobu moom xam naa dinañ ci def affaire ah, dinañ ci def affaire ah. Ah. mais naka nga gisee euh, comme ñi nga xamante ni sa xarit la rek mu doon actualité foofu ñu waxtaan ci ñi nga xamante ne ñi dañuy def ay sorties di wax ci moom récemment ñu gis nga xamante ni moo di Mandiaye Seck ak euh, ñeneen ci ay ñoo xamante ni ay jege ñaale ñu koy jege di wax ni waa liy jàppalewu leen euh, dimbaliwu leen kàddu yooyu soo ko déggee ci wàllu seen ak saa su ne ñu koy dégg ci li nga xamante ni moo di mu mooy taxawu nii naka la ñu mais Wally li mu bëgg yëpp moo na ko defal boppam. Hmm. Wally Seck. Wally si boppam li mu bëgg yëpp moom Wally si waxuma ñoom de. Hmm. Wally Seck si boppam moom si boppam li bëgg moo na ko defal boppam. Karamba nii li mu bëgg yëpp si àdduna mënu ko defal boppam Karamba bu sañoon suba day am cent milliards. Mm-hmm. Wally Seck bu xëyoon suba bu sañoon Wally Wally Seck bi ma xam farama reen bi. Mm-hmm. bu sañoon suba am junniy milliards. Mm-hmm. mais mënu ko may boppam. Wally li muy jox gars yi rek fa la mën a yem. bu ko yàlla yokkee mu yokk ko. li ko dal dal na ñeneen parce àdduna bi boo gisee boo gisee des fois may jàllale benn message. parce que réew mi moo toll foo xamante ni booy defarati nit teraanga sax dafay laaj da koy filmer réew mi dafa toll foo xamante ni Wally Seck sooy defarati nit teraanga du sax wonewu du sax ngistal du dara dafa laaj nga koy filmer parce que ñam koy defal après ñooy génnaat wax ni defaloo leen dara mhm. te bu boobaa Wally mënoo si dara Mm. xam naa ni doo ko def sax mais réew mi moo laaj loolu parce que gis nga nit ñi nit ñuy taxawee ñu naan waale defal ma dara mm. waale li waale li mu def si at mi man de li ma si fekk bariwul de mm-hmm. su ma si gisee tamit li ma si gis bariwul mais li ma si dégg bari na mm-hmm. waale li mu jot defal social si doomu aadama yi mm-hmm. buñ ko ko delloo woon mu bàyyi way waale sekk li mu def si social man fekkewu ma de mais li ma dégg sama nopp ak li ma gis si internet. Mhm. buñ ko delloo Wally Seck Wally Seck day toog noppale ko dootul way. dootul way gars yi ñuy wax ay Wally Seck defaluma dara defal fii kenn mënul defal kenn dara. yàlla mooy defal nit. Mhm. nit ku nekk sa jëbi li li si yàlla bind da koy jot nit ku nekk nag si wërsëgam day yëkkati cofal la loolu sante ko yàlla suñu borom. Mhm. bu dee am na sëriñ maam maam Limaamu Laay. nga gërëm ko maam Limaamu Laay. su dee am na sëriñ sëriñ Babacar Si. gannaaw yàlla nga gërëme ko sëñ Babacar Si mm-hmm. bu dee ku mel ni man kam karamba taalibi sëñ Fallu mm-hmm. dama koy sant yàlla gërëme ko sëñ Fallu mm-hmm. nit boo lekkee dërëm su wërsëgam sante ko yàlla nit bu la defalul dara si àdduna sax ngir yàlla bul toog di ko wax après yeneen nit yi dañ lay ragal kenn dootu la wóolu pour defal dara parce que la nga dund ak kii après noonu ngay xeewaat pour weeraat ñeneen boo tax àdduna bi gars yi nañuy bàyyi loolu xel Wally Seck champion la bu li mu def Sénégal kenn dootu ko laam-laame waali dootul fay si àdduna xamul ndax waali sekk dootul fay si àdduna mm-hmm. ñaanuma ko yàlla mais waali bu toogoon rek bàyyi way fii wax suñu doom yi doogul mm-hmm. ñoom dinañ juddu di déglu ay woy waali eh waali moom lii de waali lii de maanaam loolu doy na sant yàlla mm-hmm. kon bul xool kum defal ak kum defal parce que am na ñeneen ñoom ñoom defalagul te ñu ngi taxaw di xaar pour waali defal leen ñooñu bu leen xaar parce que nit ku nekk li la doy yaa koy liggéeyal sa bopp yéen ñiy taxaw naan Wally Seck defaluma dara mm-hmm. nit ku nekk li la doy gannaaw yàlla suñu borom yow yaay dem nga ñafeel ko sa bopp Wally Seck dala siy fekk si rek mm-hmm. Mm-hmm. parce que yow moom gëmal sa bopp nga xam ne am na ñoo war a dimbali man loolu de loolu laay wax aw ma leen lu ma ciy wax kenn ku naan Wally Seck defal na ma lii wala defaluma lii defal na ma lii Wally am na doom Wally am na soxna Wally am na ay mbokk Wally am na ay lépp boo lekkee dërëm si wërsëgu sa sante ko yàlla ak si sëriñ nga xam ne sa wërsëg la mhm. mais bul toog si benn média naan waali defal na ma lii mhm. waali defalu ma lii yow mi naan waali ndax defal defaloo la dara mhm. loo mës a defal nit ñi delloo naa ko tudd ma tur de mais ku taxaw ni Wally Seck defalu ko dara lijjantil kooku lan la mës a defal nit ñi moom mi taxaw ni Wally Seck defalu ko dara defal gësu ay mbokkam lu mu leen defal te pourtant mu ngi téye xaalis te xam fu mu dugal xaalisam. Mhm. waaw kon jeex na. kon jeex na voilà Waly maa koy tontul. Mhm. barki Serigne Fallou Mbacke. Waly Seck maa koy tontul dégg naa si ay commentaire ñu ne Karambadel dunguru Waly Seck. Mhm. dégg naa ko. waaw dégg naa si commentaire ñu ne Karamba day dungul Waly Seck déedéet Karamba fu mu fekk dëgg la koy waxee Waly fu ma ko mën di fekk yal na yor ay milliards Waly Seck yal na ëpp alal si àdduna. mais man li ma décidé Karamba. sama ñàkk fu ma ko fekk man maa koy jox Waly. waaw mu ngi mel ni ndongo bu fekk sëriñam rek Wally Seck sama sëriñ la ku ko mer yaa xam. keroog dañoo gis. déggoo li ma la toog Wally Seck sama sëriñ la képp ku si mer àdduna bi sa xol di dagg. billaahi yaa fa dee fu ma ko fekk damay yëkkati sama ñax may ko. te nee naa la Wally fu ma ko fekk muy woy lu mu dee dee ma yëkkati un million may ko. Hmm? su ma kaayaa ba kaay ba yoruma dërëm ba àdduna yëpp naan karamba tey jii yorul dërëm amul lu mu baatare fu ma fekk Wally Seck yëkkati un million may allah kon. nañ ñoom nañ nañ dem defi la neen waale dafa doon nit koo xam ni yàlla moo ko tàcc mu fecc ko ñenn ñi ne du fecc ni xaaral ñu jàpp benn tànk bi ñoom ñu jàpp benn tànk bi xool seen loxo mën naa dagg fii ñu bàyyi de mais baaraam par baaraam na ay teggi ñoom ñëpp waale kenn mënu si moom dara lu jógewul si yàlla si borom mënu si waale sekk dara comme karamba ñu ngi joxe li ma lay wax karamba faramaareen la vraiment réer te sama xol bi balaa gën a sedd mm-hmm. parce que li may damay jàll waale benn message mm-hmm. jàllale naa ko fu ne mm-hmm. sama xol bi balaa sedd Wally Seck dinaa ko indi mbuur ko waa Mbour balaa sedd Wally Seck dinaa ko pour waa Mbour kontaan waa Mbour xam ni xam nga Karamba lii la mën a jaayante parce que bëgg nañu Wally Seck Wally Seck bëri am na fi ay fans club Wally Seck am na fi ay soppe yoo xamante ni ñu ngi am na ñoo xamante ni sax li woon woon lijjanti wuñu woon sax Karamba Wally Seck moo tax ñu bëgg Karamba. macha kon Wally jërëjëf yal na la yàlla xam naa ni fi may tàggatoo mooy preuve bi nga xamante ni nag Adamo nee na Karamba day àbb ay millions naan jàpp naa naar beeg jàpp ma naar. te damaa ko gis preuve bi si téléphone yi àndal ma téléphone bi moo noonu. ànd téléphone bi génn leen téléphone bi. Ah, daa ko gaaw pare woon àndal ma téléphone bi moo. wool moor wool moor gaawal. ana moor moor gaawal. non ndaa fay